salaamaaleykum mbokki internet yi nuyu nañ leen euh, ci kenn ku nekk ci turam ak euh, santam di leen jaajëfal bu baax di leen waxte tey euh, ñoo ngi fii ci fi nga xamante ne moom mooy hydrobase Euh, ci sen premier euh, émission bi nga xamanteni mom moy disons la vérité fi ci Ndar Raññ euh, gis ni tay nak ñu fassiyene yéene seq waxtaan bi ak ñu bari ñoo xamanteni tay dañuy yëngu ci walu nap gi tay it ak jafé jafé yi nga xamanteni tay fi fii am nañ ko ci Sénégal adduna bi yëpp di ko waxtaanee muy xale yi nga xamanteni dañuy gaday di dem feulé ci Espagne ñom am nañ ci ay expérience am nañ tamit seen ay kaddu yu am solo yo xamanteni war nañ ko si sànni ginnaaw loolu tamit ñu fassiyene len kenn ku nekk ñu présenter len ko bu ko défé moom moom it dina wax lan la euh, gisee mbir moomu mu am solo lool euh, salaamaaleykum Amdy Amdy ziar na euh, Lamine maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay bu baax di la dalal bu baax a baax a baax si Hydrobase bi nga kontaan na ne trop tey jii seet si bi nga ñu seet si am nañ si kontaan trop vraiment ñu lay félicité bu baax a baax a baax a baax a baax. jërëjëf Amdy Amdy moom xam naa ko bu baax a baax waaye sëñ bi yaw tur bi nan la ak sant bi. asalaamaaleykum. Habib noonu lay nuyu di la ziar waa Balla Ndiaye Guèye la mm-hmm. dëkk fii si Hydrobase nekk pêcheur. Mm-hmm. Euh, Balla Ndiaye Guèye dégg ngeen ko moom it mu dëkk fii si Hydrobase nekk euh, pêcheur euh, sëñ bi yow. salaamaaleykum wa ma Mamadou Dieye dëkk Hydrobase. Mm-hmm. waaw ñu nekk fii si Hydrobase. Mamadou tamit moom it dëkk fii si Hydrobase di fi def liggéey bu am solo moom it dégg ngeen ko noonu dinañ seq léegi ak moom waxtaan bu am solo père père ziar la. dolli na ngi leen ziar bu baax. Euh, maa ngi tudd Mbam Bambour Dieye dëkk fii si Edara Bass mm. ñoo ngi leen di dalal jàmm si waxtaan bi ngeen woo mm. Euh, jërëjëf euh, per Dieye dégg ngeen ko bu baax moom it euh, waxtaan bi ñu fas yéene ko séq ak ñoom ñëpp ci li nga xamante ne moom mooy lii di ne moo xew ci jamono ju mujj ji muy immigration clandestine bi nga xamante ni xale yi ngi jige fii ci ci di dem wàllum bitim réew ñu fas yéene séq ak ñoom waxtaan bi kenn ku si nekk nag dina am point de vue gis-gisam ci mbir mi tey ñu fas yéene doore ci Amdy Amdy tey li nga xamante ni moom mooy première question bi ma lay laaj lu am solo mooy tey gis nañu tey li nga xamante ni ginnaaw napp gi fas yéene ci waxtaan ak yow ci karam lan moo tax napp gi doxatul mbir mi doxatul mais sa gis-gis euh, ci xale yi nga xamante ni tey ñoo ngi gàddaay di dem euh, fële di Espagne euh, ñu ni gisatuñu Sénégal seen seen bopp lan moo waral mbir moomu dafa am lu ci am wala sa gis-gis. waaw Lamine maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di am kontaan de trop li nga ma laaj dinaa si sawar tontu vraiment. parce que Lamine tey si tey jii xale yi di dem nii amul kenn koo xamante ni yaa ngi yeewoo si langue de brave mu gënal la wala mu neex la mais c'est nag dafa amul pexe ñàkk pexe bi mooy ñun ñëpp ku ne xam nga ni péssé noonu te ñun géej gi nañu yaakaar yaakaarul lenn lu dul géej waaw parce que suñuy kilifa yeeg suñu waajur yëpp si géej gi na leen fekk mais tey tey xale yi bu ñu demee bari gàddaay di dem Espagne yaa quelque chose parce que tey jii defe naa ni yaakaar tas na yaakaar tas na si benn côté mooy tey tey jii géej gi ñëpp xam na ni am na jafe-jafe jën. waaw kon ba amee jafe-jafe jën nu dem ba si biir. lu tax jafe boobu lu koy waaw li war a jafe-jafe boobu mooy fi ñu toll nii géej gi dafay ñàkk jën te li war a ñàkk jën bi mooy que géej gi dañ koy jël di jaay licence PS bote yi. te jën bi fi nekk dayul sax jeunesse bi fi nekk jën bi fi nekk dayuñu sax kon bu ñu demee ba di jaayal jën bi ah, licence eh, kii bote yi loolu vraiment jaaxle dina am. Hmm. njàqare dina am. Hmm. tey jii xale yi li ñu yaakaaroon seen yaakaar dafa tas si géej gi amaana nag loolu moo tax tey jii ñu jël barsaax ak barsaax hmm. naam dem bi ñuy dem gënalu ñu neexuñu mais amaana nag dañoo amul pexe te dañuy sàkku ndimbal si autorités yi nga xamante ne noo fi nekk. ak sunu gouvernement yi fi nga xamante ni noo fi nekk ni ñuy def nu arrêté ko licence yi nga xamante ni dañuy jaay bote yi nu arrêté ko vraiment. loolu nga gis ni mais ba tey am di euh, ba tey ñu gisaat ni euh, est-ce que est-ce que tey fii bëri na ay xale yu fi jóge tey dem ci Espagne wala est-ce que bëri na ay xale yoo xamante ni fii waa doomu hydrobase est-ce que tamit am na ñoo xamante ne des nañ ci ndox mi. waaw fii bay xool gaal fi jugee daanaka bare na barewul mais bay xool ñi fi jugee doomu gerte noo fi gën néew. vraiment ñi fi jógee bu ñuy wax deug rek doomu gendal no fi day ñew parce que bay xol gaay yoo gaa yoo xam dañuy yàpp ay plus de 200 personnes ay 5 doomu gendal nga fi génne bay xol ñi fi jógee no fi gëna ñew ñëw te dem ba dem nekkul seen coobare. am nañu si seen bakkan. waaw vraiment amna nañu ñak seen bakan bu fekkee dañuy wax deug rek amna na ñak seen bakan parce que amna na. tamit réussir jàll waaw am am ñoo xam dañu jall na vraiment. bu ñuy wax dëgg am ñoo xam ne jall na amna na ñoo xam dañu ñak na si seen bakan mais lool nekkul lo xamante ni gënoon noonu vraiment limite Euh, ñu dégg ko bu baax am di tamit euh, di rafetlu ba wax kàddu yi gis nga nee na maanaam euh, licence de pêche yi nga xamante ni tey moom nañu jaay borom bato yi tey moo indi jafe-jafe ba yenn xale yi tey di gàddaay di mën a dem fi nga xamante ni moom mooy bitim réew wala rawatina fële ci Espagne ba tey tamit ñu ñëw est-ce que nangu nga lii nga xamante ni moom la am di wax ci mbir mi. salaamaaleykum di wax ni rek lii am wax moom lu mu maîtriser la hmm. parce que maanaam nit moom mbir mi boy laaj ki nga xamanteni ni moko dundu wala ki nga xamanteni ni mo bokal ñi nga xamanteni ni dundu kon ya xana di nga am information yi nga xamanteni mo nga soxla wa li am di wax ni mom lool mom la mool yëpp di joy ndax buñ démé ba tay Sénégal muy dem di ñaan ay licence de pêche ndax loolu li koy firndeel mooy ni ñun sunu géej doyatuñu mo waral ñuy dem Mauritanie di fa ñaan ay licence de pêche ay euh, Guinée yooyu kon yaakaar naa bu ñu bay ñaan ay licence de pêche ndax maanaam ñàkkate jën boobu ñun ñuy wëlbatiku di jaay suñu géej ay bateau européen wala ay euh, kon euh, contrat yi ñu doon signé yi nga xamante ni union européen ak tamit contrat yi ñu signé euh, Chine. Mm-hmm. te ñooñu yaakaar naa seen nappin bi ñuy napp dafa supérieur sunu napp ñun. yaakaar ñu gaal amee ni muy gaal loo maam mën nga dem géej ba teer doo gis jën mais ñoom jën dañuy ñëw taamu jën bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a jàpp bu ñu ñëwee ñoo xam na ne jën bi nga xamante ne moom la jàpp euh, tonnage bi nga xamante ne moom la ñu soxla te danañ ñëw fekk. jël nañ soxla par zone la wala ci ci Sénégal gi wala Sénégal mu ñu mun si napp par zone la wala. waaw ñoom booy xool maanaam euh, contrat yi leen di may sax. si ñàkk bi ñàkk contrat yi ñàkk tegu si yoon buñ koy jooy pareegunu ñoom dañuy ñëw fi nga xamante ni mooy euh, si littoral bi di bokk ñun napp gi di nga xëccoo ñun yaakaar naa tey bu fekkente ni dem nga ba yow euh, boto ñëw ba fii si seraasu euh, Fass Boye tonni fa gaal yi nga xamante ni maam même pas deux mètres même pas deux mu tonni gaal yi nekk foofu ba tey mu jëwul fenn comme mooy wane ni ñoom boto yooyu noonu dañu bëgg a ñëw jaxase sunu ressource mhm. ñëw fekk sunu ressource yi ñëw jaxase jaxase dem seen yoon mhm. te loolu maanaam sunu gouvernement yi war nañ ko maytu ndax parce que ñun Afrique maanaam euh, sunu euh, doole demewul noonu comme bu ñu fekkee ñoo xamante ni seen doole daf ñu supérieur nu mhm. leen di jox sunu géej ñoom nuy amee matériel yoo xamante ni maanaam ñun amuñu ko sunu doole matewu ko ñoom nu ñëw euh, maanaam sunu géej nu jaxat jaxat def lu leen neex dem seen yoon ba pare ñun doomu Sénégal dem ba tollu moment boo xamante ni da ngay ba yow mi nekk mool sax pour nga am ndawal problème la ah. waxatuma laa ñi nga xamante ni dañ dëkk ay euh, côté Saloum yooyu. Hmm. kon yaakaar naa ni sunu état yi war na dellu gannaa si li ñuy def. ndax président Macky Sall bi muy ñëw di euh, maanaam xëcc pour nu jox ko réew mi. moom dafa doon gëmël mool yi ni leen kat du ma toogee dinaa fexe ba contrat yi nga xamante ne moom la ñuy may boto yi. dinaa fexe ba arrêté ko. kon yaakaar loolu mënu waxoon nag tey moom euh, gisuñu si dara. amaana moom dafa ñëw yokk jàngoro bi daal dafa ñëw gën a euh, yokk jafe-jafe. kon maanaam yéen gën a dund jafe-jafe. waaw yi dafa yokk ndax ku si nekk si ñun yaakaar naa ni at mi mujj ñëw mooy gën a métti si yow si napp gi mm-hmm. day dem ba yow maam boo defee fare dem géej sax maam pour nga ñëw euh, am si dépasse problème lay doon mm-hmm. borom gaal day dem ba am koñ yoo xam ne bu fa dee jaar day daw dem ba waaw lu tax loolu ndax parce que boo ñëwee fekk sa nawle nga ni ko waaye gaal gi dafa bëgg a tëmba léegi dama bëgg nga toppatool ma fare yi nga xamante moom la gaal gi yóbbu mm-hmm. bu dee gaal mbaal mu toppatool la quatre cent mille wala sept cent mille bu dee gaal fële-fële mu toppatoo ba cent cinquante mille. waaw li mu leen di toppatoo moom ba yéen boo leen di nappi moom ngeen di yóbbu mooy essence beeg bi nga xamante moom ngay duy booy dem af fare lekk yeeg yooyu. ko génne géej gi. waaw dé man la maam da dem ba yow da nga am koñ yoo xamante ni doo fa jaar wala mu am numéro yu lay woo doo ko wuyu ndax lu ko waral mooy la nga waxante woon sa nawle mën a toog da nga waxante woon moom kat ni kat du demee géej na somnaalo su ma ñëwee jénne eh, sa fare jox la mm-hmm. mais mu dem ba yow maanaam euh, da ngay dem ba loo dépassé daf lay tëg kon looy faye fare mm-hmm. ah loolu nag moom yaakaar naa ni jafe-jafe bi yëpp si sunu état yi maanaam ci gis-gis daal kon da ngeen di génne quatre cent mille boo leen di amaat di am ay ñaar fukki junni ak deux cent mille. gaal dafaa fare quatre cent mille ñëw teer ndoxu kase ah. dama ni maam euh, si jamono yi nga xamante ni moom lañ toll. Mm. moom da ngay dem ba benn moment bu maam bu dee si gaal mbaal bu ñaari téeméer gaal tëmbee hmm. ñaari gaal ñu si jàpp jën te zone Mauritanie la koy jàpp bu dee gaal fele-fele fi ñu toll nii sax géej ndax gisatuñu luñ jàpp moo tax sunu mbokk yi bare si fele-fele yi ngi nekk dëkku tànk yi am si benn benn ñun ñu nekk foofu ñoo xamante ne dañ leen di xatal da leen di xatal di leen final si maanaam dañ dem ba li waral loolu yëpp mooy que ni maam giij gi li fi nekk moo nu doyatul moo waral ñun moo li sunu bopp nooy wëlbatiku di tojante bopp

si matériel bi ñu liggéeyee la jëkki parce que xoolal mbasim bi ñuy jaay ñu ngi koy jaayee trois millions cent cinquante mille léegi mbasim yow boo ko jëndee doo sax daw un mois foro bi toj yaa ngi deewoo beneen foro pour def ko si foro bi noonu la koy jaay ay deux cent cinquante mille euh, cent cinquante mille wala deux cent mille léegi yow xoolal géej gi ni mu mel noo ngi am problème bël boo xam ne ñoom ñoo ngi ñëw ñu imposé nu bëri bi ni koy liggéey mm. depuis keroog bi ñu ñëwee ministère bi ñëw fii ni defee def première pierre pour mu samp bël bi boobu ba léegi te semaine lan waxoon travaux bël bi moom semaine lan waxoon nu bàyyi boobu ba léegi gis nu lu nu laal bël bi te boobu ba léegi xam naa mi ngi bëgg a mat weer ñu jógee si loolu xoolal matériel yi ñu yore yàlla xam na ni amul benn matériel boo xam ne la borom matériel dina ko jënd liggéey ko mu génne njëgam amatul waaw gaal yi xoolal gaal yi benn gaal ñoo ñemetu si tekki sa matière ñii fii yëpp nga xool amul gaagu si ñemete gaal yëpp dañuy yeew na jotunu jën bu photo yi yàq nañu géej yi yaxeet yaxeet yaxeet dëkk boo dem nag si Afrique Afrique moom ni leen naxee si affaire pêche bi dafay yéeme dafay yéeme mm. te encore Macky Sall bi mu ñëwee fii ba léegi vidéo yaa ngee daw mm. lépp lu mu nu digoon lu nekk rek mi ngi suñu nopp mm. lépp lu mu nu waxoon vidéo yaa ngee daw ba tey ji boo taaloon réseaux day yi di daw kon moom li mu nu waxoon nun fàtte woon xëy moom moo fàtte li mu nu waxoon mais nun fàtte woon nun nag ñuy sàkk moom si moom ndimbal yi muy signé contrat na arrêté moom li Euh, géej gi ne li géej gi nekkee moom moo ko géej parce que moom moo ne woon bu xasee ba falu lii yëpp daf koy éliminer mm-hmm. mais moom deful loolu mm-hmm. waaw mais si sa gis-gis jàpp nga ni tey fii tey yow euh, ci Sénégal kon à ñaata mool ñoo toog dematuñu géej du jeex maa ngi nii sama classe ga kenn dematu si géej parce que géej gi li fi nekk doyul mool yi géej moom ñëpp koo waxte yàlla tax daa xam ni moom li fi nekk doyul mool yi ndara ngi daan na boo xëyee suba par fukki frigo daan na wàcc pam bi hmm. léegi boo demee fee si domaine bi daa fekk oto frigo yëpp a gaare lu wara lool mais nun waran toog jàngal li waral lii hmm. lan la hmm. parce que géej gi moom amatul jën moom kenn waxatul ko jën moom mais nag xanaa li fi nekk as ñëw daan ko sakkanal pour maanaam kiiwu di dëkk bi mën ko dundee. Hmm. mais duñ ko jël jaay ka ñeneen ñu koy dundee ñun waa dëkk bi ni yow suñu loxo hmm, hmm, ah. kon maanaam kon euh, euh, daal mën nga mën nañu wax ni kon daal fii chômage daa daanaka Sénégal chômage yéen si yéen lépp daal. léegi daal fii lépp moom si pièce bi moom pièce bi bu njëkk benn semence mais léegi pièce bi yëpp ay semence lañu ndax mën nga xëy weer ñaar dërëm doo ko liggéey li kom li la xaale bi wax rek làqat yi di dunde làqat yi fare essence yëpp sa gaal mu tëmb ñëw léegi boobu sa boo ko ñëwee sax mu dem yow léegi jëkk mooy boo teeree yow waxtu waxu fare ba yaa ngi naan ndax machine ba paanool loolu moom ngay jikki bu la woowoon ni la noo ngi yetti noo si buntu bël bi yaa ngi naan yaa ngi tudde yàlla ba nu la dugg si bël bi si ngaa soog a am jàmm moom bu la waxul dugg nañ yow mënoo am jàmm yow mi nga xam yaa dirigé matériel bi bu duggee bël bi la wooyee lu lay jëkk a wax mooy machine bi kat benn machine bi nanga parce que gaal yi bu nekk yaa ngi yem ñetti machine wala mhm. yi jar fii trois millions mbësi mu ngi faa jox 3 millions 300 mille. Mauritanie gii moo ñu gën yomb matériel foofu. man daal te machine boobu mooy tax ngeen liggéey. machine moo tax noonu liggéey. bu ngeen ko daan jënd tamit deen daan euh, moo doxoon. moo doxoon. moo doxoon daan nga leb campagne bu dee tijji nii daan nga leb ay millions def sa matériel mu wóor la bala campagne bi sore daa génn. Hmm. les campagnes bi bu dee tijji 500000 boo ko leboon pour nga fay ko nga déparé ko liggéey pour nga fay ko problème la. problème yi daal macha allah moom yaatu na trop. Euh, Père Dieye euh, ñu lay laaj tamit euh, dégg nga bu baax waxtaan bi ñu séq ko ak yow yow tamit nga am expérience si si si mbir mi nan nga jàngatee mbir mi nga xamante ne day jafe-jafe gi yéen a ngi koy dund tey fii ci nga xamante ni ci hydrobase ak ci ci ak ci pêche bi ci fépp ci Sénégal ndax koo gis mi ngi jooy nan nga gisee loolu Père. asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu di leen sant ah li ñuy wax tamit ci la ñuy tàmbalee rek xam ni wax nañ dëgg ndax lu dul yaakaarul lu dul bël bi te gouvernement bi fi nekk heure bu ñëwee tamit ma ngi nii nax ndax tey bi tey boo demee ndax gouvernement bi mu gis na bis nekk moo leen yóbbu seen portable di gis saxaari yi ñuy janoog ñoom ñuy laaw géej gi di jël suñu ay jën ba léegi ñu am na zone boo xam ne bu ñu fa yeggee gis fa jën bi amul benn gaal gu ndaw goo xam ne daa fa yegg ngir saxaar yi léegi li gën gàtt mooy saxaar bu fa gisee gaal gu ndaw xalaatam yëpp mooy li moom bëkk gaal gi ndax gaal gi da daf leen seene te dañ koy bëkk mu mu mu boo deewee baax na boo dund baax ndax gis nañ fi saxaar jàpp fi gaalu jàmbur sànkam moo la fa nekk ñu wax nañ ko guddi wax nañ ko bëccëg gisuloo ñu def ci benn problème amul benn problème ñoom faale woon na sax ndax tegoon na ñoo dara hmm. ñu ba sa topp mooy bël bi ay doomu aadama yi dul jeex ñoo ngi seedee kenn waxu si te xale yi tamit di dee si bël bi alu dem xam ne dee gi metti na

ndax boo xoolee fii boo xoolee Casamance kaw gi tout ñëw nañ si Saint-Louis ngir rek di am lu nu dunde kon ñu am na ñoo xam ne daanu boot suñu gannaaw ñu bare ñoo xam ne ñun lañu yaakaar ñu dem ba xam ne ñun yaakaar mi ngi tas xale yëpp a gàddaay dem man ak sama morom ku fi nekk moom mag fii si dëkk bi bu sa doom nii dafay dem Espagne tamit ansi d' accord ni kenn dem ndax man ñu toog na dajale fukki guur si kër te kër gi du tekkee dara ndax la nga waroon yaakaar jaay nañu saxaari jaay nañu fu ne jaay nañ lépp. kon yow daal ànd nga ci xale yi tey gàddaay gi nii gàddaay. man mii sax gaa bu ma gisee gaal damaa dem. <laughs> Ah, waaw man ma gisee gaal ah. damaa dem li ngeen gàtt mooy ah. loolu. waaw man man dama bëgg man man sama bopp. lu tax ma gisee gaal damaa dem damaa yóbbaale sama doom yu ndaw yi. lu tax loolu. mooy dëkk bu dëkk bu tar. bàyyi bàyyi ko bu ñëw bu ñëw mu tar mooy Sénégal ci boppam moo métti. ñu ne pour dem yóbbu say doom ak yëpp. bu jigéen ñi ma nee dem na ma leen yóbbaale <laughs> ci mu gën leer man wax naa ko fii benn rajo bu fi ñëwee nëbbuwuma làq-làq bu mam bambour jee ma wax lii te ku tëgg gaal tamit anaa bokka sa ñaka tëgg gaal gi dem ndax yaakaar moo tas ñun kenn duñu roy te des ndax ñoom ñii nekk ci gouvernement Sénégal seen ay doom yëpp kenn toogu fi ñun gis nañu bu du lii laa wax tànqalu naxit fii Mansour Faye mi nekk suñu maire ma ngi nii seen kër xam nañ ko bu baax te ñoo ngi nii seen ay seen ay famille ku tumra ku tumranke nekkatu fi te barke Diemo Ndiaye gis na ni ñoom ñoo daan jaay gaz waali fii xam nañ leen te tey seen waa kër ay pétrole lañ amee yoto ñun ñooy daan suñu doole di liggéey gisuñu fii. sur mais mais góor gi euh, maanaam euh, tey euh, Père Dieye boo gisee boo gisee loolu maanaam yow léegi kon daan mën mën naa la expliquer kom yow léegi da ngay daal maanaam suba ba jëm soo doo am dara doo liggéey dara. tey bul wax tey tey ndekkiw ma jàmmalaay laa jógee gi doo ma sama tooyaay ndekkiw ma géej laa jógee gaal teerul gaal jàppanu dara. ndékkiwuma ta boobu nga daan sukkandiku ci laa daan lekk sama njaboot ci laa tey gaal yi jàppoon dara gaal yaa ngi taxaw ba sa topp mais noo koy dundee noo koy dundee da ngay da ngay après léegi boo boo am loolu am noo koy dunde nu ma koy dundee xanaa ba léegi métti na de góor jàll na métti xam nga ñun fi nekk nii bu du woo sax gën bu dul deewoon du fi nekk andoo daal di noppalu fii Sénégal waaw ndax di dundal sa njaboot nga nga yeewu ba sa ay njaboot nga taxaw fii di leen xool ñu laa xool du ñu ndékki du ñu añ loolu rafetul ñoom ñoo lekk di nan manul nekk li ñu yaakaaroon ñoo ngi jaay nañ ko portugais yi jaay ko chinois yi jaay ko anglais yi réew mi gaal yi ñu fi daal indi sutura dëkk bi gaal yaa ngi takk takk seen amateur kon ñun ñee mag ñe lu noo lekk dëgg la ah du ñu lekk dara ñun daal xam li gën li gën gàtt hmm. mooy gaal yii nga gis bu leen ngeen photo gaal yi teg ci bu bu nu gisee xale yi bu nu paree anoo jël suñu gaal yii ñu dem. ñoo xam anoo refoulé anoo xam ñu bëj refoulé. mais mais tamit góor gi fële métti na de. ndax boo xoolee tamit euh, moom foofu ñooñu maanaam da ngay ñëw rek am li nga bëgg. ma ne ñooñu. ñoo lu mu dee dee ñoo ëpp yërmande. dëgg la ñoom baax nanu ña fa demoon ñoo ñen nañu ña fa demoon sa bu njëkk ñoo ngi am seen ñaa ay étage. Mm-hmm. man mii si benn sakket la dëkk. Mm-hmm. aw ma tus. lekk ko ma ba day am fu ma dëkk waaw wax la wax dëgg réew mii bu fekkee nii rek la nga jàppoo moom nit ñu pagaañu noppalu ñu bàyyi leen réew mi. jërëjëf euh, tey ñu dégg tey euh, sunu père Dieye dégg ngeen ko bu baax nee na bu dee nii na noor continuer ñu ñëpp daal faatu daadi wax nga dëgg waaye góor gi tamit mënoon mën a dund ba ci kanam kanam euh, gis ngeen ñu seq waxtaan bi tey ak ñi nga xamante ni moom mooy ñi ñëpp waa góor gi ci ci ci maanaam am na lu ma la fàtte laaj ci tey ci napp gi ñaat at nga ci def. waaw dund naa juróom fukki ak ñett. moy ñata ci nap def naa si def naa si napp gi man bi ma parce que boo daan xool sax ci daara ji. xawna xaw parce que xaw jalla na fofu pour capitaine. ba ni kon mais mais góor gi euh, euh, nga expliqué nu tuuti ci waxtan euh, gal gi gal gal gaal gu mel ni nu tok ah. bu ko ëppay dem Espagne yab 200 personnes wala gal gu mel ni lay do gal gu dey ni yab 200 man na yab 200 bu ko ëpp dafaa jàll 300 yi. ami góor gi gaal gi réyul yooyu yooyu rëy ba war a mën a yeb loolu si personne. waaw bu ko xam nga gaa yéen gaal a rëyul man nga amee saxaar te du rëy bu démb sañ boo nekkulee mool xamuloo fa ngaa jaar mooy gaal yi fii indi jee gi nga fii capital da mool mooy Saint-Louis te ñun ñooy waa Gendar ñooy premier mool fii gaal gu fi tëmbal bu ka bu neexee président bi ak bu ka naxatee yegg laa def bokkuloo dëkku tànk yéen ñun anu maîtrise si te géeju góor la noo jaar bokku nag ñun si dex gi de suñu géej ma nga fale sa gannaaw mm-hmm. te fa la noo jaar xam nañ luñ fee jaare mm-hmm. tàng bu jógee xam nañ ko tàng bu wàcce xam nañ ka mm-hmm. ñun duñu daw si maali poro añuy daw si tàng la noo daw xam nañ ka xam nañ géej maanaam mooy maanaam tempête mooy ngelaw bu ngelaw baree ñu xam nañ nan nunu koy utiliser ndax daan yëpp suñu bagage yëpp toog xaar ka ba mu dal xam nañ war ndax tàng lu mu déedee juróom-ñetti fan waruloo ko weesu nga dal gis lu tàng bu fee daw fukki fan ak nangam juróom-ñetti fan nga bu tàng bi dalee ñu jóg demaat si noonu ñi ka xamul nak ñom ñoy tëmb fi yem yegg Elmadi bala nga dugg géeju goori xar gaalu jaamur wala nga lor bakkanu jaamur ñun rus na lolu ma jeng gal man ma jeng gal ak ñi ma bu la joxon gal mu nga ko yobbe Espagne. xolal amerique boko soxla ma la gaf amu sa sikki sak xamna naa ci la juddo xolal juddoo la na sango ñu naa ko ci dex gi juddo fi yero ma ben dekk digga gën xolal nga may ma avion nga may ma gi ma dem ci Espagne mo ma ko gënal maa la wax loolu ma dugg si gaal gi dem Espagne moo gënal wóor avion ndax avion si jaww ji lay jaar gars yi nan bàyyi la wax fenn wóorul yàlla rek moo wóor yàlla rek moo wóor avion te lu ko teya la teya avion si kaw mo teya gaal si ndox mi yàlla moo ko kattanal ba moo naw bu si yàlla àndul woon avion bi du naaw gaal gi bu ko yàlla bu si yàlla àndul di yegg fu mu dem nanu bàyyi loolu xam nga la wax adu bëgg xale yi toog saxaar nan fi dégager jën bi wàcc defar bël bi yi jaar xale yi toog mm-hmm. manunu ko heure bu ne ñu ñëw nax nu teg fi seen ñetti sees seen benn tribune benn gendarme rey nu si piip piip ñëw wax nu loo xam ne dara du si dëgg ñoo ngi noo rey na nu jërëjëf gi euh, jërëjëf Père Dieye euh, dégg waxtaan bi moom bu am solo la am di euh, fi nga xamante ni yow xam naa fa ngay fa ngay fas yéene waxtaane jeexale ka man fi may jeexale damay ñëwaat ba ci góor gi après ndax am di mooy maanaam yow est-ce que nangu nga xale yi dem comme gis nga góor gi moom joxe na point de vue am yow est-ce que gis nga tey nangu nga xale yi dem wala nangu nga xale yi toog dina baax ak lan lañ leen war a mën a defal loo xam ni bu boobaa jàmm dina dellusiwaat xale yi mën a continuer waat liggéey bi gën a mën a doxaat may pêche waaw ah, Lamine maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax xale yi dem bu ñuy dem amul kenn koo xam ne yaa ngi yeewoo si langue lu bari bari te mu neex la mais comme li ma la waxoon laa la waxaat mooy dem bi ñuy amul pexe. moo tax ñuy dem te yaakaar moo tas li ma waxoon laay waxaat yaakaar moo tas mais nag bu ñu bëggee xale yi toog mooy nañu dimbali si géej yi ñun ay mool noonu ku ñuy jàppale si géej gi ñuy jàppale ñun marché wu ñu ceeb bi dafa seer. ni ngeen ko bëggee boo bu que ñun tey tey géej gi bu libéré saxaar yi nga xamante ne dañ leen di may ay lissance su pees buñ nga arrêté defaroon nu bël bi kenn dootul dem. wax dëgg yàlla lu waay bëgg bëgg bëgg bëgg dem bu ñu defaralee suñu bël bii saxaar yi nga xamante ne dañ jox licence su pees noo arrêté ko wallahi kenn dootul dem mais dem bi noo dem dañoo amul benn pexe dem bi noo bëm amul benn pexe yaakaar moo tas man mii di waxanteel yow mii sa bël bii buñ ko defarulee ma damaa dem de parce que bël bi ku fee jaar sa sa bakkan mi si xotti gerte. dem Espagne moo gën a yomb a jaar si bël parce que bël bi boobu dee itam sa yaay xelam du dal sa papa xelam du dal sa maam xelam du dal sa soxna xelam du daal te Espagne boo fa dee itam ñëpp daan am yaakaar di nga dem di nga egg mais bël bi sa sa xel du dal tànk teeraatoo waaw mais bu fekkee bël bi nag nii rek na dund moom wallaahi nu dem Espagne moo gën a noppale que bël bi ñu jaar ni risque bu rëy la te saa su nekk dañu siy nax sampaloon nañu fi ay boy nii dañ ñi siy dee ëpp nañu plus de 400 personnes yi teg. ci ay weer yu nekk wala ci ay. napp gu nekk rek. heure bu nekk nit mi ngi siy dee. tey tey jii boo toogoon fii lii balaa yàgg nu wax la la am na ko si dee. te dan siy lab te ay mooloon kaamil noonu ñu mën fee noonu xamul ko mën fee xamul ko mënul fee ñun ñii di waxante yow ñii mbëccagul si bël mun te du ñaan yàlla suñu borom muccul ñu si. te yéen leen mën leen mën leen mën leen bàyyi leneen lu dul lu dul pêche bi rek. ñun bàyyi leneen parce que ñun fii maam li ñu fekkoon maam di ko def napp gi rek ngeen xam. napp kese la ñu xam xamuñu leen ku ñuy jàppale dañuy jàppale si napp bi kese parce que ñun kaasuñu ceeb bi dafa seer kaasuñu diwlin dafa seer kaasuñu sugar dafa seer kaasuñu mandat trois ma trois trois mandat kaasuñu cinq mandat ñun daal lu ñuy kaas mooy. ak suñu géej kese jàmm ñooy. nangu nga ci li ci ci li am di wax loolu am na solo. waaw li mu wax nii kàddu dëgg la ndaxte nit moom bu fekkee. tamanu bàyyi géej gi mooy que ni maanaam loolu. day wane ne rek lu mu mis la lu mu fekk maam donc dafay papam mis mhm. bi yoobu noonu moo sonal rek mais waaw man mii rek xam naa lu mu deeree géej gi def naa si vingt ans te xale la mhm. def naa si vingt ans fii da gis mag muy rod ba bokk sëtam gaal mais boo gisee maanaam ñun euh, si benn yërmande boo xam ne yàlla def na ko si ñun doomu gendar bu fekkente ni maam dangay liggéey da ngay liggéey jox sa waajur amul kenn koo xam ne si ñun rek yaa ngi liggéey ngir sa bopp képp kuy liggéey da ngay liggéey jox sa waajur yow xamoo loo amaloo ñàkk yow la nga xam mm-hmm. mooy dem naa géej am naa dara kër gi nanu dund ku si nekk gis sa bopp mm-hmm. tey nag bu demee ba nga xamante ni nii yow da ngay dem di wuti loo jox sa waajur ñëw sax doo mën xool sa waajur ndax parce que fekk na sa waajur dugg na si yoo xamante ni yow yaa tax mu dugg si mm-hmm. ta loolu noonu gisul dara loo xamante ni rek mën na tax xelam dal kon tey nii li nga xamante moom la am wax noonu la mbir mi demee mooy que ni bël bi dem na ba toll moment boo xamante nii yow maam dem Espagne sax moo gën a wóor jaar si bël bi ndax Espagne moom da ngay def euh, benn yoon am retour leen di dem c'est forcé foog ngeen jaar fa waaw forcé foog nga jaar si bël bi ndax même booy dem Mauritanie même feneen ak feneen foog nga forcé nga bël bi ndax bël bi mooy sunu yoon mooy mel ne yow mii bi ngay ñëw si woto nga dugg fooy jaar si ko télé bi nga jaar mm, mm. kon ñun bu ñuy dem tamit si bël bi la ñuy jaar te bu dee yoon Espagne bi li muy danger yëpp mooy yow benn yoon nga koy traversé mais yow bël bi li nga koy traversé da nga koy traversé deux si bis bi ah waaw da nga koy traversé ndax mënoo fi ñàkk jaar ta balaa muy gën a danger mooy maam bu ñu demee ba mois de janvier février mars si lay gën a danger man mii di wax ak yow nii mois de mars le 23 mars saa su ñëwee man maam damay am sama xol day tooy. ndax parce que le 23 mars man dama nekkoon si ñi nga xamante ne noo def accident yàlla dogal sunu ñaari mool yoo xamante ni. si fumi waaw si bël bi waaw. sama waaw si laa bokkoon ta maanaam sama ñaari mool dee si. ñaata ngeen woon ci gaal gi. gaal gi euh, six personnes la ñu woon doy décédé mu des quatre. mais yow def ba génn. ah ma def ba génn ndimbal yàlla rek ndaxte ñooñu nga xamante ni noo dem man maanaam euh, yaanaa gënuma leen tamit defuma lu tax yàlla. muccal ma bàyyi la ñoom ñu des. Mhm. yàlla moo dogal xëy na ñoom si la seen sang waroon mat. Mhm. mais lépp loo xamante ni ni metti na rek nit dund na ko fi nit ànd na fee waajuram waajuram des si bël bi xale buy jàng géej ànd waajuram waajuram des si bël bi. nit àndanaa doomam nga koy gis nii nit àndanaa doomam doomam des si bël bi mais ñun li ñu soxla mooy sunu état ñun nanu defara sunu yoon mu ñog mu defara nu yoon ba yoon i ñoŋ defaral nu maanaam euh, li nga xamante ni nii mooy sunu euh, kii euh, tefes gi nga xamante ne fii la ñuy teer mooy quai de bi ndax maanaam ndar gii nii hmm. bu ñuy wax mooy capital mool hmm. fii yow booy ñëw nii quai de bi boo ko xoolee sax da ngay rus hmm. ta dëkk yi nga xamante ni maanaam la fay tee matu sox sans pirogue nu defaral leen ay quai de yoo xamante ni nii noo gën a supérieur sunu quai de pêche yi. te kon maam loolu day wane ni ñun maanaam dafa mel na dañu gannaawal rek. te lépp lu ñu fiy def ñun fii mooy maanaam premier capital euh, de Sénégal. kon lépp lu ñuy def rek ñun maam war nañu si gëstu. dëgg la tey ñun soxlawuñu kenn koo xamante ni nii maam day euh, daf ñuy wutal métier wala yooyu ñun am nañu métier ba pare. Mm-hmm. te lépp loo xamante ni rek. maanaam état mu ngi siy sonn pour wutal nit ñi euh, xëy pour nu bañ sëmër. amal ngeen seen xëy waaw kilifa bu nekk moo ngi dox si tànkam ba doomam léeg-léeg balaa muy. wàcc axuraan sax mu dugal ko si géej gi pour mu mën a dimbali waajuram dimbali ko. am na solo am jëf solo jërëjëf euh, sëñ bi euh, dégg nga tamit am di ni mu wax léegi ak euh, ku baax ki dégg nga moom it lu mu wax léegi léegi lan nga gisee mbir moom ak lan nga war a mën a tamit am sa li nga xam ni jàpp nañ mooy sa dernier message boo xam ni war nga ko mën a lancer ñu mën leen ci dimbali jàppale leen si ginnaaw yéen amu leen beneen beneen métier lu dum napp ki te si ngeen yaakaar te gis neen ni doxatul kon war ngeen ci mën a woo ba ñëpp dégg wax dama ñom dund nañ ko ñom bo déggé ñom ni ñu waxé da xam ñom li dañ ko dund parce que ñom noy jaar jaar ci bël bi guddi ak bëccëg ñom heure bu ne ñoo ngi bi boy dem ci bël bi ngay jaar boy dugg ci bël bi ngay jaar légui ñu bël bi mo nga gaaso dugg ci sax guddi far légui bëccëg dañu dugg mais téwul tamit problème yi fi gëna am rek Macky Sall rek lañu ñaan ñaanuma Samba ñaanuma Demba mom ci bopam lañu ñaan parce que mom mo ñu digoon mom mo ne woon problème ndar mom mo ngay téye ci loxo bopam kon bo ba légui xadi ñoo ñong kay ñaan lepp lu ñu ci mën dimbalé rek si bël bi rek mu dimbali ñu si te machine yi mu xool machine yi maanaam nan la ko war a wàññee parce que machine yi jafe nañu te machine yi mënoo ko garanti un an déggoo mën la machine boo si jënd bu daan daw weer furoo baa toj te machine yi dañu jafe. mais machine dañ leen koy lebal pour ngeen liggéey fay. wala amul machine bu ñu fee lebale amul kaas ngay génne machine 3 millions 800 mille ngay génne teg si taabal ji nu jox jox machine amul pièces yi ngay nga ko lebalee matériel amul lu ñu see lebalee mool suñ ma mool Guet-Ndar dafa sonna dañu sonna wallahi amul lu ñu leble si mool bitig bi sax boo bëggoon pont boo génnewul xaalis du la jaay busi bi ngay def si machine bi amul ku la kaa lebal lépp da nga koy jënd kon nag moom na xool lu mu si mën dimbalee rek si wàññi machine mu dimbali nu si mm-hmm. bël bi lu mu si mën taxawoo parce que mënu ko digoon te boobu léegi noonu koy toog di ko yaakaar mm-hmm. lu mu mën jàppale rek mu jàppale ne ko si te yàlla tax mm-hmm. waaw loolu daal moom la nga koy dénku loolu euh, euh, yow xam naa ni am nga message boo war a jàllale par rapport ak euh, gis nga jafe-jafe yi yow moom gannaaw jafe-jafe yi ngay dund yëpp xam nañ wax nañ ko waaye tamit am nga ka am nga message boo war a jàllale ñëpp xam ni jàllal nga ah, mooy dama ni président pour mu xam ka wala tegeen tegaale ka réew mi

daanu gàddaay dem Espagne ndax duñ toog fii nag moom moo lekk ak di naan ak ay famille ñun ñu nekk fi suñu ay waajur gi nga fan yi paase naaxu paaw fi dee ñàkk xaalis moo leen dara xalaat mu métti moo leen rey te kee tegu leen ka président kese moo leen ko teg président kese teg loolu waaw ndax kër gi boo yëwoo boo yëwoo suba nga war du am war loo war dunde nga war a lekk songa sa papa dara nek fi loy def sa papa ba jaxal da gis pa bo xamni way waaye yeewu ñaari fajar nek ci mbeddu fajar si di dox dara taxul mo dox xol dafa am problème bu gi la keur gi mo dara mo fi nekul dara mo fi nekul lu war jox jox bugul yeewu suba ay njabotam gu sew taxaw war ndiki te du ndiki te dara wal ko moy géej mu yaakar gaal yi yegg son bi jëmmi bi te jëm bi saxar may nu ko jamm pour mu wàcce si en cas dogale fi nek ni ben ga benn ga gi ma rëcc junney di seem jën loolu rafetul te dara teguñu ko lu dul président de la république Macky Sall kat na lu ko bëgg ñoom moom bu ko neexoon tey lii noo jàmbat moo li parce que moo lu Sénégal li parce que jàmbat bu ko neexoon tey mu dagg. dëgg la waaw dëgg la euh, jërëjëf euh, Père Dieye euh, yi ne doon seetaan gis ngeen tey seen émission disons la vérité tey si ndar ràññ gis ngeen gars yi kaddu yi fi yi fi jub tamit muy ay kaddu yoo xamante ni kaddu yu am solo la wax nañu li nga xamante ni moo leen métti tey jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel ci napp gi tamit wax noonu tamit Euh, gis nañ ni euh, xale yi nga xamante ni dañuy dem euh, di jël gaal yi di dem bitim réew gis nañ si war nañu mën a dem ndax tamit fii daanaka dafa amatul dara bu gis nga góor gi nee na maanaam pa gelluwaal pa yi fi nekkoon yëpp dee noonu ndax ndax tamit xaalis amatul dara amatul yor njaboot gu sew nga war a yeewu suba war leen dundal amoon dara loo leen dundal te si fi nga ko doon yaakaare doxatul kon donc donc message boobu am na solo di ko lancer tamit le président de la r Macky Sall pour mu dimbalee ñi nga xamante ni ñoo yëngu bu baax ci wàllu li nga xamante ni moom mooy tamit euh, président xam naa ni loolu di nga ci jàpp dugal sa loxo bu baax ba a euh, delluwaat tamit di dundal ko daan defee euh, jërë ngeen jëf ci seetaan bi ngeen doon li nga xamante mooy seen émission disons la vérité fii si Ndar Raññi jërë ngeen jëf. salaamaaleykum Macky visa yi nga jox fecckat yi nga bàyyi ka Macky Sall avant nga falu ñëwoon di Idara Baas gii tiin nga xool ni daan defaral lépp visa yi nga jox fecckat yi joxoo ko jàngkat alxuraan yi imaam yi ñëpp a ngi fi. mooy li gis ñun mësu jël Espagne yone Espagne waye jant bu xalé jëlé Espagne xalé lu gendar yi gaal Espagne ñu dem ragalu ñu si dara dara duñ si daw yoda boy li leen wax Espagne Espagne eh,